gëm yàlla nii gëm yàlla bëgg yàlla dëgg la bëgg mhm. yàlla dafa def tamit ne ay nit daje ñu suppose ñi ces gens nit yooyu ngor moo leen di rey mhm. parce que ñu ay être humain du ñu ay bàyyi ma dafa am ay sentiment yoo xam ne être humain donc moo ko moom mhm. bu ñu àndee ensemble coow am pour la première fois ci senegal ci affaire troisième mandat en 2011 avant même yaa yooyu dinaa ko def duma ko def dama doon foo mm. mais boo demee ba amoo sa candidat bi nga waroon teg sa doom mm. maa ngi sama maam Ablaye Wade je vous beaucoup de respect parce qu'il a beaucoup fait ci Sénégal aussi hein ñu naan suñu maam dolli ñu lu ko daaneel c'est des actes de malgouvernance mais le bilan matériel quand même il y a eu beaucoup de changements par rapport au jeu socialiste revenant légèrement en arrière pour génn Dakar il fallait passer par Rufisque, Barnier, euh, Pompier. Vous vous rendez compte de ça, avec quatre heures de temps pour sortir de là, mhm. avec les sept places là. mais boobu autoroute bi tege ci kawam y a eu des avancées gis naa leen que <laughs> nit kenn du ko bañ ay ay jëfam. Mhm. surtout c'est positif. donc bu ñu àndee problème boobu posé wu ñëpp jóg di xeex fii au Sénégal non non non. man ma jógoon sax pour déposer sama candidature en 2012 mm-hmm. à travers une émission télé très suivie le dimanche à 10 heures sur une télé très radio très de connue de la place nga la ma président Macky Sall remarqué doon créé Macky 2012 mënuma mm-hmm. kii di wax effectivement mënuma kii bëgg naa ko mu dugg Macky 2012 mm-hmm. boobu ñu ma ñëwee ma wax ak parti bi ñu discuter c'était un peu étriqué Mais pour l'intérêt du Sénégal, nous avons accepté mmh. qu'il n'y ait pas de monarchisation de pays. Papa Paré Djokhadom. Tchao libéré. Opération Place de l'Obélisque. Bénigni défie au nombre de 14 quinze 15 personnes, dont Feu Mamoudou Diop, euh, je pense que le, le policier Baba Ndiaye, je pense, mmh. des choses comme ça, Fodé Ndiaye, des choses comme ça. Et pas mal de choses qui sont passées. Donc ça, c'est le prix de sang. bu ñu defee ba yàlla jox ñu nguur gi ñun ñu doon xeexlu par troisième mandat si ba yàlla jox ñu nguur gi est-ce que war nañ sax di ci daan virgule am na fi virgule amu fi wala premier mandat bu def ñun deux mille douze ba deux mille dix-neuf la woon wala c'est un non mandat les décrets qui te été signés les budgets qui ont été du mandat il faut qu'on arrête de jouer avec le feu te ñuy waxante dëgg suñu bii bàyyi toppatoo suñu ay privilège personnel donc kese pour naan nit ki toogal man j'ai conseillé à mon au président de la République de ne pa suivre ces troubadours la di xam ni moom mi nga xam ne ba mu ñëwee en 2012 ñun ñu ñëwandoo on a trouvé déjà une constitution buy limité deux mandats loolu ni nga ko rappelé Sénégalais yi naan dafa bees Mm-hmm. en 2016 mille am constitution bu bees je suis sur l' juridique képp juriste bu bu la sañ a wax nekk de la mouvance présidentielle ñëw fii di la naan am na constitution bu bees de 2016 indil ma ko fii ñu jàkkaarloo wala ñu ñëw à cinq ko teg précisément parce que c' une révision bi c' est une révision 2016 référendum portant sur des quinze points donc dont l' article 27 alinéa 2 ne peut faire plus de trois de de de mandat consécutif une révision de la constitution mais tey boo tapé constitution rek ma ci génn 22 janvier 2001 il y a pas de constitution de 2016 li ñu bëgg na saxal xalu nit ñi parce que ñooñu di wax loolu sax léegi ce sont la plupart des transhumants à 95 pour cent sont des transhumants pourtant il y a des professeurs d'université yoo xam ne ils n'ont aucune coloration politique mm-hmm. ils entretiennent euh, euh, interprétation à outrance kii jël position bi kii jël position bi dafa am benn ambiguïté. dans je les mettrai je les à 20 pour cent contre 80 qui disent que c'est pas possible. c'est vrai que quand benn génn rek naan hey eh, c'est possible vous voyez tout le monde. lu rare day précieux. dem dem saytu ko mais je vous dis. Mhm. quand le président Macky Sall sort je vais vous donner deux. parce que le meilleur interprète de la constitution au Sénégal c'est le président Macky du keneen. du magistrat du keneen. parce que ces magistrats qui sont Vous pensez que ce sont des constitutionnalistes Non. Je vous donnerai un, euh, je pense Xavier ou Félix Loutoudon. Mm Il était professeur de droit des obligations et des contrats. C'est mon professeur là en deuxième année à la fac. Il a été coopté pour être juge constitutionnel. Le Moudjang, droit constitutionnel ou le droit des contrats et droit des ventes et des locations Il est sur le robe, il tègue le feu pour l'honneur, n'est le bon, tranche. Tu le ramènes de sa compétence Je dis, prenez les sept. donc man ragaluma benn juriste ragaluma benn constitutionnaliste dañuy toog ci ay logique parce que le droit constitutionnel ce n'est que le droit sur la politique c'est nous qui faisions la politique en 2012 bi ne président Abdoulaye Wade dafa def troisième mandat je peux comprendre même quelque part si président Abdoulaye Wade parce que moom dañ ko éliroon ci constitution boo xam ne amul limitation de mandat constitution de 1963 ba mu ñu ko falee en 2000 la def référendum 2001. ne désormais ñaari rakka. est-ce que dindi nañ ko ba léegi. non lu ñu dindiwul lan la ñuy naan modification la modification xam nga lan la touché. mooy ñaari rakka yi rakka bu nekk ñaata kabar la. bu njëkk bi juróom-ñaar bu ci topp. Mhm. bu ci kabar yi juróom-ñaar ak benn bi juróom mais du tax. loo mën a tari bu lu mu sori loo mën a tari bu gàtt ñaari rakka dong ngay def alors nga ñëw fekk ko fi 2001 wax nga sax nga ñëw fekk ñun ñu ñëw fekk ko fi parce que je fais partie des gens qui ont mis président Macky Sall là où avec d'autres ñu fekk ko fi 2016 ñëw référendum ñëw laalu ko durée du mandat euh, nombre de mandat changer durée bi 7 à cinq mais loolu la concerné laalul la nombre de mandats Et d'ailleurs, quand vous entendez le président Macky Sall, meilleur interprète de la Constitution deux choses. Ben mi ngi taxaw euh, le président Kaboré. Je sais pas vous vous souvenez de cette vidéo. Il dit clairement, ce dont il était question, c'est moins le nombre de mandats que la durée. Le nombre de mandats est réglé depuis longtemps. Mhm. C'est la durée. mu ñëw 31 décembre 2018 war a dernier second et dernier mandat ci page 165 bi. alors dafa répondre dafa répondre troubadour yi sax léegi actuellement. mooy sama mandat mandat bu mujj. boobu sax moom la daanalee mais dafa ne. sama premier mandat kay. Mhm. en 2018. ah oui de sept bu yàlla defee bi may di ak réalisation mooy ngeen tegal ma ci beneen de cinq. ça fait sept plus cinq. cinq plus cinq ça fait sept plus cinq il faudra partir. Mhm. doom yi ñëw ne ko demoo fenn sa wax jarul door si doomu kenn. Hmm? mais c'est ça ça signifie mooy waxam ça ne vaut rien allons-y devant le conseil constitutionnel allons devant le conseil constitutionnel euh, monsieur Coulibaly oui devant le conseil constitutionnel lu mu lu nekk ci ni tous les magistrats au nombre de sept sont nommés wax ma élus nommés par le président lui-même et tout seul qui est juge et partie hmm. donc deux président assemblée nationale moo ko sur une liste de quatre cinq yi moo ko nommé directement deux yooyu c' est l' assemblée nationale qui lui a donné. Mhm. yëpp moo nommé. mu ne kaay arbitre sama propre match. Mhm. man kott kese dong maa la nommé. Mhm. mais ñu ñaan yàlla qu'il y de la lucidité et que le sang ne coule pas encore comme ce fut le cas en 2012. justement ma ko yàlla. ça c' est purement du droit. Oui. la constitution sénégalaise de 2001 l'unique constitution qui existe aujourd'hui mm n'a jamais été changé sur le nombre de mandats. d'accord donc s'applique à tout cas qui postérieurement. c'est ça alors wax naa ko léegi wàllu interprétation balaa ñu ñëw si conséquence yi yaa ngi wax waxu sang mais dama bëgg ñu euh, étudier conséquences sur le plan politique mais aussi économique. Mm-hmm. Euh, dama bëgg ñu ñëw d'abord sur un cas précis. en termes d'interprétation on a vu une sortie euh, très récente de du professeur euh, Kader Boye nekkoon euh, ancien. Euh, doyen de la faculté des sciences juridiques et mhm. politiques de l'université Cheikh Anta Diop de moom dafa soutenir ne l'article 27 ah euh, d'ailleurs dafa confirmer sax